أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di dellusiwaat ci bindum ñaareel bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel ay bind yoo xam ne dafa aju ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñu waxtaanoon ca bind bali jàll lan mooy saxaaba ak lenn ci seeni ngëneel ñu waxoon ne dañoo bëgg bind bu jot rek ñu jël kenn ci saxaaba yi ñu tënk lenn ci dundam waaye tënk ci lenn ci ngëneelam gàttal rek incha allahu taala waxoon na it ne bu ñuy ñëw dañuy tàmbalee ci al ashratu al mubashirina bil janna muy fukk yi nga xam ne yonent bi moo limoon wax ne ñooñu seen àjjana leer na te bam koy wax it ñoom fukk yooyu yëpp ñu ngi doon dund ci kaw suuf waaye taxut ñu wàññi dara ci seen passeef seen digganteeg yonent bi waaye seen passeef ci seen digganteeg seen borom ca kooku ca jiitu mooy sayduna abu bakrin muy ku tedd ku baax ku sell ku yiw koo xam ne ci jamono yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam foo gisee jëmmi yonent bi rek danga ko gis ci wetam mu taxaw foo gisee abu bakrin it boo xoolee bu baax da nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne seenuk ànd moo jiitu woote bi lu jiitu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nekk ab yonent booba lañ daa ànd booba lañ juboo woon déggoo lool ba ñëpp xam seen diggante ñoom ñaar ñu am ak mbokk it goo xam ne dox na ci seeni maam te boo doon lim ci maam yonent bi sallallahu alayhi wasallam topp it maam yi Abu Bakri na nga gis ni ñoom laal nañ ci wàllu mbokkoo moom Abu Bakri mi ngi ganee jamono ca Màkkatal Mukarrama wax nañ ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mage woon na ko lu mat ñaari at ak lu teg tuuti abu bakrin mi ngi ganee jamono màkka ca ginnaaw atum ñayya rek ci atum 573 ci la gane jamono ca màkkatal mukarrama waajuram wu góor di baayam mi ngi tuddoon abu quhafa lañ ko daa dàkkantale usmaan ibnu amir waajuram bu jigéen it mi ngi tuddoon ummul xayr salma bintu saxr moom abu bakrin nag turam dëgg-dëgg mooy abdullahi ibnu abi quhafa mooy aw turam dëgg moom abu bakrin mi ngi ganee jamono foofu ca màkkatal mukarrama bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote woote bi ne yàlla suñ borom da ko yónni mooy ki nga xam ne mooy ki ko njëkk a wuyu si ci woote bi nangul ko li nga xam ne moom la ko yàlla jox ci lu dul mu nekk di sikk sàkk wala mu ciy xalaat wala muy am lenn lum ci déng-déngal te jataay ba ko yonent bi waxee rek bam daaneel kàddoom la ko nangul loolu ndax ngir ne yàgg nañoo ànd yàgg nañoo xamante ca dund nañ ca xam na ko bu baax a baax a baax moo tax ba mu waxee lool rek da ko daal di nangul ca saasa moom Abu Bakrin waaye yëmut ci nangul ko rek nangul gi mu ko nanguloon da caa tegoon di ko jàppale di jàppale lislaam bu baax a baax a baax ci fànn yu bari rawatina ci fànn gi nga xam ne mooy lu jëm ci wàllu alal moom ab commerçant la woon yàlla defoon na it mu bokkoon ci ñu ëpp alal ca màkkatal mukarrama moom Seyduna Abu Bakrin waaye it bokk na ci njàmbaaram ak ci góorgóorloom ci tàmbali bu woote bi ngir ne am na ay saxaaba yu bari yu tuub yoo xam ne moom Abu Bakrin moo moo leen dugal ci lislaam ndax moo waxtaan ak ñoom leeral leen li nga xam ne moom la yonent bi indi waaye leeral leen it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ nangul ko li nga xam ne moom la wax moo ànd ak ñoom ñu dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di wax ñaari baati seere yi ca saxaaba yooyu ay kilifa lañ yu mag te sax mën nañ ne ñoom ñoo ñëpp ci fukk yooyu nga xam ne moom lañ waxoon ne yonent bi moo leen limal moo leen seeral seenu àjjana bokk na ci muy Seydina Ousmane mi nga xam ne danañ ñëw ci moom muy ñetteelu xalifa wax nañ ne Seydina Abu Bakrin ci ak sababam ci la tuube waaye Zubayr it noonu Abdurahman ibn Xawf Saad ibn Abi Waqaas Talaatu ibn Ubaydullah ñii ñëpp ci loxoy Abu Bakrin lañ duggee ci lislaam Abu Bakrin nag mi mu duggee ci lislaam bari na ay ngëneel lool ngir ne mën naa ne mawqif bu ne rek ci mawaqif yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaar na ci muy taxawaay yépp moo xam ci marxala màkka la muy étape bu màkka wala ci étape bu madinatul munawwara wala sax ci gazawaadi bu ci nekk rek boo xoolee dañ ko daal di gis Abu Bakrin mu feeñ ca ngir ne bim duggee ci lislaam musta tàqoog yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtu wu ne mi ngi ànd ak moom ba ci xare yi sax daanaka moom mooy nekk kiy sës ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moom Abu Bakrin ci wàlluk njabootam ak këram boroom xam-xam yi nee nañ yoroon na lu mat ñeenti soxna yoroon na lu mat ñeenti soxna wax nañ ne it yoroon na ñetti doom yu góor amoon na ko amoon na it ñetti doom yu jigéen soxnaam yooyu bokk na ci muy xutayla bintu bintu abdul uzza bokk na ci it ummu roman bintu xamir bokk na ci it soxnaam yi asma bintu xamis wala xamais bokk na ci it xabiba bintu xarija ñeenti ñooñu mooy soxna yi sayduna abu bakrin doom yi nga xam ne moom la amoon ca ñuy ay góor bokk na ci abdullahi ak abdurahman ak muhammadu waaye ci soxna yi soxna Aïsa mi nga xam ne mooy soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Asma ak Ummu Kalthum ñii ñooy ay soxna ay doomam yu jigéen te ñii du ci ñàkk ñoo xam ne nii suñ agsee ci seen bind rek danañ ci leeral lu baree bari ci njabootam googu moom Seydina Abu Bakrin mu doon it koo xam ne ku yàlla gërëm la bari na ci alxuraan foo xam ne suñ boroom moom la cay junj di ko ca tagg bokk na ci mooy alal jooju nga xam ne yàlla mayoon na ko ko moom Abu Bakrin li nga xam ne moo ci gën a fés ci lum ci def mooy jaam yi nga xam ne ñu ngi leen doon bugal ca màkkatal mukarrama ñooy ñu néew doole ñoo xam ne nii amuñu fa mbokk amuñu fa xarit yaakaaruñ kenn ku dul yàlla te yàlla defoon nit ñoom ñu teeloon la dugg ci lislaam Abu Bakrin wax nañ ne wër na ca marché ba ba génne alalam jim amoon jépp jënd ci jaam yooyu ñu baree bari wax nañ ne sax mat nañ juróom-ñaari jaam yoo xam ne moom moo leen jënd waaye bi mu leen jëndee ba noppi rek fasaas la leen goreel bàyyi leen ñu dem am liberté seen bopp jaam yooyu bokk na ca saxaaba bu siiw boobu ñu woowe Seydina Bilal wax nañ ne jëf ju rëy jooju jëf ju màgg jooju jëf ju tedd jooju muy alal jooju mu génne woon def ko ci yoonu yàlla ba mu ko defee rek sun borom daa daal di wàcceb aaya ci moom di wax ne gërëm na ko sant na ko it ci jëf jooju nga xam ne moom la def te it yàlla dina ko ci wuutal ci jëf jooju ak pay gu rëy rëy rëy ëllëg yomal xiyaam moom Seydina Abu Bakrin ci jëf jooju it mu def ko rek ngir jëmm yàlla ndax wax nañ ko wax nañ ne bi mu ko defee doon nañ ko jàmbat naan ko yow jaam yoo xam ne nii amuñu njariñ mënuñoo liggéey loof nañ lool nga di leen jënd ban njariñ la lay amal mu ne leen man de jënd gi jubluwuma ci ñu di ma liggéeyal waaye dama leen a goreel ngir jëm yàlla suñ borom moo tax suñ borom di ko fa gërëm naan ko wasayu jannabuha wasayu jannabuha al atqa allasi yu'ti maalahu yatazakka wa maa li ahadin indahu min nicmatin tujsa illa btixaa wajhi rabbihi al a'la wala sawfa yarda suñ borom di ko fi gërëm ci aaya yooyu bi nga xamee ne it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi gàddaay saxaaba yi ñoom ñoo jiitu njëkk a gàddaay waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu joxee ndigal Abu Bakrin rek ne ko moom lay war a àndal Abu Bakar ci njàmbaaram ak ci tabam mboolem luñ soxla rek ci xeeti nafaxaat ci gàddaay ga moom moo génne alal jooju moo xam ku leen togg yañ doon jëfandikoo. wala luye gi nga xam ne dañ ko luye woon nit wala jël ko di ko fay ngir mu tegtal leen yoon wi ak la ci aju lépp moom mooy ki nga xam ne moo génne alal jooju yëpp boole ko mbégte mu rëy moo xam ne nii keroog bi yonent bi gàddaay amoon na ko ngir ne bëggoon na ànd ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bala xew ci xuntuma ci xeeti xew-xew ak li xew ci yoon wi yëpp ci xeeti xew-xew yoo xam ne ay jaloore la yu rëy yoo xam ne suñu borom tawféexal na Seydina Abu Bakrin moomu mu jaar ci moom kasaalika it niñ ko waxee woon mooy ci xare yi jàmbaar la woon lool ci xare yi xare yi yu ci bare bare bari wax nañ ne ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay nekk doy na ci misaal rek mooy xaswatu badrin xayma boobu ñu defaloon yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax nañ ne mook Abu Bakrin doon fa nekk ci biir di diisoo ak lenn ci saxaaba yi nga xam ne ñoom ràññeeku nañ lool ci wàllu xeex ak ci wàllu guerre doon koo xam ne alalam ji yëpp ci yoon yàlla la ko def moom Seydina Abu Bakrin moom it mën nañ cee joxe benn misaal rek ci xasatu Tabuk bi nga xamee ne jafe-jafe yi bari na lool ci xare boobu noonu wax nañ ne ñetti jafe-jafe yu fés feeñoon na ci xare boobu ba ca njëkk mooy fañ waroon a dem di fa xaree ji sori na lool ba nga xam ne dem fa dana laaj yóbbal bu baree bari mooy jafe-jafe bi njëkk bu ñaareel bi mooy jamono ji wala climat bi wala temps bi yàlla defoon na it mu tàng lool ba àgg ci dara ju joo xam ne nii machine su xam tàngooru mel noonu ñetteel bi mooy yóbbal bu leen yóbbu it yàlla defoon na liñ ci yoroon bariwut kon ñetti jafe-jafe yooyu la xare boobu dajale woon muy xaswatu tabuk ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne man jahasa jaysul xosra fa lahul janna xare bii kat lu ci waay def rek yàlla dana ko fay àjjana wax nañ ne ba mu waxee loolu rek Abu Bakr mooy ki njëkk a wuyu comme niñ ko baaxoo xamee rek lu baax lu yonent bi wax rek moom moo ci njëkk a feeñal yéeneem daal di jël alalam jim am ci këram yépp ñëw juug ko ci kanam yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ba yonent bi naan ko sax waaye loo bàyyi sa kër mu ne ko allahu wa rasuluhu yàllaa ko yonenteem loolu ci jëf yi yu am solo yi nga xam ne Seydina Aboubacar jëf na ko waaye bokk na ci it mooy bi nga xamee ne yonent bi rañaan na ba waa Màkka daw ci kër Aboubacar ne nañ ko gaaw xibaar ko xibaar bu rëy bi moom su ko weddee rek ñu bari danañ ko mën a weddi waaye biñ ñëwee ba wax ba àggal rek daal leen diglu bañ yeggal mu ne leen lii ngeen wax de bu fekkee ne moom moo ko wax kon day lépp dëgg la te man gëm naa ko. loolu ci xeeti xew-xew yi nga xam ne xew na ci Abu Bakrin ak ci jamono yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye it Seydina Abu Bakrin bokk na ci ñi nga xam ne bi yonent yi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di lim fukk yi nga xam ne seen àjjana leer na ba muy lim fukk ya Seydina Abu Bakrin mii la njëkk a tudd moom la njëkk a tudd moom Abu Bakrin waaye tudd gi mu ko tudd it ak boole gi mu ko ci boole taxul mu wàññi dara ci mbaaxam wala ci jaamu yàllaam wala ci pëstéefam te it Abu Bakrin mii Siddiq bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na ci ay bis yu mujj yi nga xam ne mooy bis yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu def ca Madinatul Munawwara wax nañ ne moom ci boppam moom yonent bi moo waxal boppam ne. dem leen ngeen wax Abu Bakrin mu jiite ci tey dama am gànt wax joo xam ne nii kenn xelalu ko yonent bi waaye moom moo jékki-jékki wax ko ci coobare boppam Abu Bakar wax nañ ne fan yu mujj yooyu moom moo ko jiite tey it yonent bi daana dajale saxaaba yi bañ dajaloo mu leen xamal na leen su ma doon tànn xarit Abu Bakrin mii laay tànn waaye man mii day yàlla suñu borom rek mooy sama xarit moo tax da buñ koy dàkkante lañ naan àndandoo yonent bi foofu la ñu yem ndax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne bu doon tànn xarit Abu Bakrin lay tànn moom it mooy ki njëkk a wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xilaafa gi bi nga xamee ne yonent bi wàcc na liggéey it mooy ki ko taxaw mooy ki dalal saxaaba yi mooy ki leen dëfal mooy ki nga xam ne ba mu yëkkatee kàddoom rek di wax ñëpp dañoo daal di déglu ba mu waxee it ñëpp dañoo daal di nangu la mu wax waaye ba mu daane looy kàddoom it ñoom ñëpp dañoo maase ànd ci xol bu sedd jaayanteeg moom mu nekk xalifa bi nga xam ne moo wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xilaafa amit di lu riis loo xam ne nii fesoon na ci ay futuxaat maanaam yaatal diina ji bu baax a baax a baax ci dëkk yi nga xam ne moo waroon màkk ak Medine ba dugal fa lislaam yaatal ko bu baax a baax a baax ak yu baree bari ci xeeti injaasaat yoo xam ne def na ko ci xilaafaam ak li muy gàtt gàtt nga xam ne xilaafaam ci ñaari at rek lay toll ak ay weer yu néew moom Seydina Aboubakar nag buñ doon wax ci tënk rek jëmmam ni meloon comme ni ko Ibnu Ishaq waxe boo demee sax benn riwaay la boo xam ne Sayyidatuna Aïcha moom mooy melal waajuram nu meloon nee na day nit la woon koo xam ne ku tuuti la woon jëmm ji dafa tuuti woon lool waaye boo jàkkaarloo moom jëbi ngay njëkk a gis mu leer nañ jëmm ji nekk jëmm joo xam ne nii jëmm ju tuuti la mu amoon bët lool waaye bokkoon na ci li nga xam ne da koo ràññeeku woon muy ab taar taar boo xam ne nii bu fesoon la lool ci moom moom Seydina Aboubakrin ba sax lenn ci borom xam-xam yi dañ naan atiq gi ñu koy dàkkantale mooy xar kanam bi moo rafetoon waaye li gën a wér mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko mas a wax ne ko yow day suñ borom dalaa goreel ci sawara atiq mooy kuñ goreel loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a wér ci dàkkantalam boobu ñu daa ko def lu daa ko woy muy atiq waajuram wu góor it dugg na ci lislaam waajuram wu jigéen dugg na ci lislaam ay doomam dugg nañ ci lislaam waaye it bokk na ci li nga xam ne moom lañ ko ràññee woon moom Abu Bakrin as-Siddiq muy lu raar loo xam ne bariwut ci ñum am ci saxaaba yi muy lu jiitu muy nekku jullit moom mëseesu koo xam ci naan sàngara mëseesu koo xamit ci ay xërëm mëseesu koo xamit ci lu ñaaw looloo tax sëriñ bi bi mu koy tagg loolu boole na ko ci ne lam yashrabil xamra lam yasjud ila sanamin wal walidaani mahal awlaadi abraaru moom Seydina Abu Bakrin boo demee ci xasaayit yu baree baree bari Sëñ Tuubaa buy tagg saxaaba yi suy tàmbali rek ci Abu Bakrin lay tàmbalee boo ñëwee ci jës bu bi nga xamee ne tagg na yonent bi ba wax lu jëm ci xare Badar ba muy wax saxaaba ya nga xam ne ñoo fa teewoon xeetu dàkkantal wu neex wu ne ak tagg wu kawe wu ne woowee na ko Seydina Abu Bakrin wax ne wa fihimul muhaqiqu sayiduna muwaffaqu asdaqu man qad saddaqahu bilhaasimiyil alami siddiquhu mukabbaru sul haybatil muwaqaru anisuhu musabbaru fil xaari baxdal alami loolu ci ay xeeti melo yi nga xam ne moom la sayiduna abu bakrin dajale woon ci xeeti melo yu baax ci xeeti xëyba gi nga xam ne yàlla defoon na ko muy nit koo xam ne ni ku amoon personnalité amoon nit ak wegu lool ba boo ko gisee rek da ngay daal di yëg dara mooy ki nga xam ne it moo doon wéttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xuntuma ànd kooku muñ bu baax a baax a baax mooy ki nga xam ne moo bokk ci bannu Hashim waaye it mooy ki nga xam ne mooy ki gënoon a dëggal wala ki dàqoon a dëggal ki ñu àndoon ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam kon loolu lenn la rek ci misaal loo xam ne nii dañ koy gis ci sëriñ bi buy tagg saxaaba yi buy tàmbalee da tàmbalee ci buntu ba Seydina Abu Bakrin boo ko xoolee ci xasaayit yu bari noonu la demee nii mu ko waxee ci jës bu it noonu la ko waxee ci muqaddamaat bi nga xamee ne wax na ne yow xaadimul muxtaar comme nañ ko waxee woon ca dars ba la jàll bul fàtte saxaaba mi ba muy tàmbali ci saxaaba yi abu bakrin la tàmbalee daal di wax ne abu bakrin as-siddiqu su sidqi wal wafa rafiqu nabiyil mustafa al xaara an baaw abu bakar mi nga xam ne mooy ku dëggal ki borom kóllëre gi àndandoob yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ca xuntuma kon mbokk yi ci gàttal rek dañuy wax ne seyduna abu bakrin mi buñ bëggoon a gàttal ci moom rek dañ naan doy na ko rek ngëneel doy na ko rek ndam muy mooy ki njëkk a wuutu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye it mooy ki nga xam ne mooy ki yonent bi jiital ci ñi nga xam ne ñoom ñoo waxoon ne ñoo koy ñooy dem àjjana seen àjjana leer na waaye it ci mujjantalam it mooy ki nga xam ne mooy ki doon jiite julli yi nga xam ne am na ci yoo xam ne sax yonent bi ànd na ci julli yooyu Aboubacar jiite julli googu bi nga xamee ne it wàcc na liggéey wax nañ ne moom ci boppam moo sàkku ñu denc ko ci néeg doomam boobu di soxna Aïsa ci wetu Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam ci tënk daal lii mooy jaar-jaar yi Seydina Aboubacrin ñu war caa teg nag jàmbaar jooju nga xam ne mooy Seydina Omar wax ci ak ay baax baaxam ak ay meloom ak ci nan la duggee ci lislaam ci bind ba la ñu jëm incha allahu taala ñuy ñaan suñu borom mu dolli yërmaan dolli ngërëm ak xéewal yu baree bari ci Seydina Aboubacrin ak mbooleem saxaaba yi ca tax ñu ci seen barke wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh